terminer par deux points d'actualité mmh. euh, Ousmane Sonko dafay démarrer une tournée mhm. euh, politique boo xam ne dina ko conduire en Guinée-Conakry au Burkina au, au, au Niger et au Mali et puis dafay recevoir ki nga xam ne euh, moom mooy Jean-Luc Mélenchon dégg naa ñu bari ñoo xam ne nag euh, orientation politique boobu daf leen daf leen xaw a déranger yow da nga bokk ci ñooñu. non xam nga man <clears throat> li may wax rek mooy xam nga Ousmane Sonko aujourd'hui c'est un chef de gouvernement d'un pays qui a des relations apaisées avec énormément de pays dans le monde, dans l'Occident comme en Afrique. Aujourd'hui, le président de la République Diomaye Faye mu ngi def une tournée diplomatique boo xamante ni nii commencé na ko par nos voisins et je pense que ça va continuer je pense que loolu lu am solo la lu baax la maintenant le chef du gouvernement aussi war na moom def attention pour ne pas mélanger li nga xamante ni mooy les rôles entre la diplomatie bi nga xamante ni état moom la war a doxal ak les pays ak li nga xamante ni mooy les relations politiques parce que tey jii je pense que am na loo xamante ni suñu ko mélanger entre relation politique ak diplomatie je pense que mën na indil Sénégal ay jafe mën na indi obstru mën na obstruer signal bi. absolument mën na obstruer signal parce que aujourd'hui je pense que nous tous on condamne les régimes yi nga xamante nii day ñëw par de coups d'état ba pare di fexe xool nan la ñu mën a def. pour que ñooñu revenir à l'ordre constitutionnel et je pense que bu fekkee da nga nekk un chef de gouvernement il faut nga def ndànk def dal parce que je pense que confusion de rôle parce que c'est comme si on a deux têtes dans l'exécutif et je pense que loolu je pense que ñoom ci seen bopp ñoo war a dal xam ne comme ni ma la ko waxee état du affaire caaxaan dafa am ay responsabilités yoo xamante ni tey moom la ñu war a am donc je pense que il ne faudrait pas que ñu dugg dans un boo xam ne demain ça peut amener des problèmes pour le sa diplomatie.